damaa waxoon léegi ne Balla Gaye day daan Tapha ci lu dul ay caaxaan bëri na ñu ma ci lool nag waaw am na benn supporter Tapha Tine boo xam ne dugalal na ma ci xaalis yu bari na ma li nga waxoon fexeel ba lépp loo mën a def ba mu ba soppee ko def ba ma def ci ay mbir wallahi insha allahu taala Tapha Tine dina duma Balla Gaye dina ko duma dina ko daan ci kàttanu yàlla ndam li wëlbati naa ko ci Tapha Tine insha allahu taala God have mercy upon us. no. I don't know. laa <laughs> ilaha illallah maanaam c'est que man c'est man nag nag nag nag nag nag man nag dama war a bàyyi vaar yi parce que ñi may vaar dafa mal ne baar yi ma leen di moom lañ bëgg quoi vraiment parce que euh, man dama wax ba sonn man dama wax ba sonn c'est combat bu mag bu toll nii rek am ñu génn parier quoi manam ñoom parier la ñuy def comme ñuy jouer carte xaalis yooyu maanaam da ngay ñëw sànni sa carte rek mën naa am eh, nga dal si mën naa am nga bañ see dal mais yéen léegi yéen ñi doon wax ñëw leen fi ngeen waxat ah comme ni ma ko doon faral di waxee rek yéen ñi doon wax ne eh, kii mooy daan wala kee mooy daan génnaat leen ngeen waxaat ma léegi nag lan mooy problème bi te xoolal am na si ñoo xam ne rusuñu daa seet <laughs> tet tet am na si ñoo xam ne xoolal lii nii rusuñu dara génnaat taxaw naan la waaw combat bi mën nga koo gisee nii ba ci jour bi affaire bi dëpp ak ah, mais mais mais mais xanaa loolu sañoo leen mu ko wax de saa yi yi amul dëpp waaw amul non non xam nga problème bi mooy lan ah nit li nga moom da nga koy jël lu yàlla moom nga bàyyee ko ko yaa ngi dégg xam-xam am na am na ñoo xam ne macha allah yàlla may na leen xam-xam bu wér sax. wallahi lu am laa leen di wax nii am na ñoo xam ne xam-xam bu wér la leen yàlla may mais ñooñu duñu jël yenn risques yi mukk mukk di ko wax du questionné dañoo wóoluwul seen xam-xam waaye xam ngi ñu xam yàlla suñu borom moo tax du ñu def yenn yi maanaam mën nañoo wéet ak yow ci roq ne la combat bi nii lay demee day am quoi mais nag duñu jël micro àdduna bi yëpp di leen xool ñu ne nii lay demee parce que xamal loolu boo ko defee maanaam da ngay mel ne euh, ci duma ko mën a misaalee par exemple yow suñu borom jox na la secret nga weer secret bi maanaam ci lool la la la la laa ko mën a jàngatee maanaam suñu boroom xamal na la lu war a xew suba d'accord parce que nag am nañu yàlla di xamal luy war a xew suba waaye yow yàlla xamal na la suba jotegoon nga ñëw weer nga weer secret bi la yàlla xamal léegi nag yàlla ci ci man-manam ci kàttanam mën naa dëpp lim la wonoon bu boobaa nooy def doo am gàcce. li rek la manam mbir mi du questioner da nga gis dara da nga wara ñew ñeukante nit ñi pour wax leen ko après li nga waxone bu tombee après yow voilà quoi nga profito ci euh, voilà am ci sa dara nax nit ñi lolu baxul lolu baxul yalla won na la lim lay won amna sa ben nit wala sa ben way wala sa ben taalibe peut-être bo dendal mën nga ko wax combat bi suba gis na ci li ak li mom bu amé ah dina na sëriñ bi waxoon na ma lii wala lii wala lii mais la fait nga jël micro génn taxaw publiquement di ko wax rek mooy da nga bëgg attirer attention nit ñi pour que ñoom ñu jàpp ne yow mii da nga am xam léegi boo ci dalul boo xëyee loo ñuy wax ay affaire bi dama ko gisoon nii ci guddi gi lañ dëpp affaire yi diw mi daanu dafa am ñu bëri ñu ko sotondoo maanaam combat bi ba démb bi may tëdd ah diw combat bi moom moo yoroon victoire bi waaye yow doo bàyyi si caaxaan yi Hmm? bàyyi leen seen caaxaan yi loolu baaxul xam-xam am na ñu ko yàlla may mais ñi ko yàlla may dañ ciy dimbali jaam ñi ñi ko yàlla may dañ ciy dimbali jaam yàlla yi waaye nag dëkk doo ko yor pour pour pour man ñenn ñii ñi def lii ñëpp moom amuñu xam-xam ay naxaatekat yu mag laa fi gis ñii taxaw di wax ne football bi nga ñëw nañu bal bi ñaata bii lay am nangam nangam combat bi kii mooy daan suba lii mooy xew loolu loolu loolu loolu borom xam-xam du ko def parce que boo amee xam-xam di nga xam yàlla as tuut te ku xam yàlla xam kàttanam xam sañ-sañam doo ko njëkkantu doo ko njëkkantu mukk di ko njëkk a wax li mu war a def moom boo ko njëkkee def yàlla ko am fulla la ci ni mu ko mën a waxee yàlla borom fulla la maanaam yàlla mooy yàlla kenn moomu ko kenn yilifu ko kenn du ko digal kenn du ko tere moom moom ñëpp mooy digal ñëpp mooy sañ di def lu ko neex bu ko neexee won la lii ba nga gis loolu mu dëppaat wax ji léegi nag mu ngi noonu yéen ñu ne kii mooy daan kook daanu da ngeen génnaat ngeen wax da ngeen génnaat ngeen wax te nag nit bu boo doomu aadama bokk na si liñ lay nawee boo juumee nga nangu ne da ngaa juum mais yéen da ngeen di juum ba pare dëgër bopp ne juumoo leen génn di ñu waxaat ay waxu xët naxa sa xat nag quoi baax na di ngeen xam ne man moom fii ngeen may fekk fii maa ngi fii daw ma daay ba ku ci rusu te taxaw di wax combat bi nii lay demee rusu ma laa vaat fii yéen ñëpp seen vidéo yi dama koo capté woon denc ko di xaar jouru combat bi léegi nag da génn ngeen wax wasalaam. lu ma def maa tay neexaluma kenn baaluma kenn maa